sëñ bi Abdou Latif Kane ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa lay di fay. Mhm, ngay expert pétrolier di scientifique physicien tey ñuy wax ci conseil présidentiel jëm ci projet de loi bi jëm ci euh, séddale ak it nan la ñuy encadrer euh, lépp lu jëm ci exploitation pétrole ak gaz bi nga xam ne ñu ngi koy amal ci Diamniadio euh, tey lan mooy solob ndaje googule waa jërëjëf euh, ginnaaw bi ma nuyoo say auditeur mm-hmm. nuyu waa Sénégal yu nekk fii ci biti biir réew mi ak ci bitim réew mm-hmm. maa ngi lay gërëm di la sant di rafetlu li nga ma jox kàddu mm-hmm. euh, question bu am solo la ndax Sénégal dafa war a def ndaje conseil présidentiel bu am solo boo xamante ni njiit réew mi moo koy teewee ak euh, ki mu denk ministère du pétrole muy madame Sophie Gladima di jigéen di sa morom jigéen jigéen bu mën góor jàmbaar donc damay profité euh, félicité jigéen ñi day wane ne jigéen hmm. lu góor mën jigéen mën na ko parce que secteur bu mel ne secteur pétrole nga jox ko jigéen loolu cër la ci jigéen hmm. te dama lay félicité yow mii nga xamante ni en tant que journaliste hmm. ndaje bu am solo la puisque comme ni nga ko waxee euh, dañoo ne ci phase de dañuy finaliser le projet de loi nga xamante ni dafay wax ci naka la ñuy séddalee alal bi génn ci pétrole bi ak gaz bi ak naka la ñuy xoolee ba tax ay taxawal ay kenn yoo xamante ni dina mën a aar gestion pétrole bi parce que nag aussi euh, comme ni ko suñu charte réew waxee muy constitution bi ci tomb euh, ñaar fukk ak juróom bi daf ne meññeef yi nga xamante ni ñoo génn ci ci si réew mi moo xam biir géej wala ci suuf si mhm. askan wi moom mhm. donc à partir du moment où askan bi ñun ñoo ko moom mhm. euh, donc yoon la ñu jéem ko méngale fexe ba dina mettre en adéquation li nga xamante ni moom la suñu charte réew wax loi ak règlement yi nga xamante ni njiitu réew mi ngi koy teg hmm. te loolu lu am solo la fàttali na la sànq ci français ne ñun am nañ chance euh, yalla jàpp naa ne bàyyi nañu xel parce que hmm. yàlla jox nañu ay meññeef yu am solo mais itam mu tombeel ñu am ci bopp réew mi nit koo xamante ni moom scientifique la géologue la ingénieur la lii la jàng hmm. ba Petrosen kër gi nga xamante ni moom mooy négocier Sénégal moom fi nekkal Sénégal ci turu Sénégal ci wàllu pétrole ak gaz moom jiite woon na ko donc nit la ko xam bu ah, normalement dafa war a ñëw rek doxal warta làmbaatu euh, et je crois qu'on a bon espoir loolu lañ gis ba léegi réforme yu mu jël lépp c'est des réformes yu am solo ba barki démb dégg nga tubaab yi les grandes compagnies réew yi ëpp doole ci àdduna bi ñu ngi wax ay transition énergétique mhm. ñu jugee ci pétrole beeg gaz jublu ci yeneen de façon courageuse il a dit que leen sukkandiku ci yii ressource non renouvelable yi ba pare ba développé bëgg mm-hmm. ñu cee bëgg ñu cee jëlee donc loolu duñ ko nangu je crois que loolu lañ soxla njiit réew boo xamante ni bu intérêt Sénégal yi taxawee daf koy défendre sans pour mu voilà mu xool leneen mm-hmm. loolu rek moo am solo te je crois que en au delà de ça meññeef yi pour mu jëriñ ñu euh, dañ ko war a encadrer ba nga xamante ni dinañ xam sénégal yëpp luñ ciy am loolu moo tax tey boo xoolee am na ay décret yuñ jël yu am solo yoo xamante ni mm-hmm. d'abord day kattanal suñu secteur privé parce que réew moo jël ci àdduna bi réew mu gën a ëpp doole mhm. daa fekk mu dooleel secteur privé je parle nag du secteur privé local parce que mhm. secteur privé national mën nga am secteur privé boo xamante ni la plupart du temps ay société yoo xamante ni de droit sénégalais fekk na ci ginnaaw dafay am ay tubaab yi ci mhm. mais je parle du secteur privé local bi nga xamante ni avec suñu gaz bi war a génn ci waaxe gi secteur bu ama yu am solo la benn bi mooy au cap de biche war na taxaw boobu ay kilifa taxawal ko ay ñoom xaadim ballo Afrique ay kilifa boobu war a joxe trois cent mégawatts beneen bi aussi également mi ngi nekk dans le nord. Mhm. Euh, bi nga xamante ni également war na génne deux cent cinquante mégawatts loolu bu bu taxawee du def leneen lu dul jàppale Senelec dina tax courant bi njëgu courant bi wàññeeku bu baax a baax a baax a baax. Mhm. nit ñi également mën ci gis seen bopp seen koom-koom gën a yokk ndax courant bi bu wàññeeku bu baax a baax. Mhm. menuisier métallique bi li mu doon war a fay ci courant. su wàññeekoo kon poosam dina gën a duum dina gën a bëri ba dina mën a lijjanti problème am dina mën a lijjanti problème yi njabootam ak ay mbokkam mhm. beneen élément bi également aussi mooy chaîne la chaîne la dina laal pàcc yu baree baree baree bari je crois que au delà de ça également am na un projet du gouvernement bu tudd gaz to power mhm. boobu li ko tax a jug mooy à partir ci gaz bi ñu defar ci courant bu baree bari ba nga xamante ni dinañ mën a jox dëkk yu amagul courant ci Sénégal mhm. am na dëkk yu amagul courant nous sommes au vingt et unième siècle suñuy nawle lañ comme ñun lu ñu amee courant dañoo war a am courant dafa fekk na dañoo nekk ci réew moo xamante ni amuñ doole mais état bi quand même su Macky Sall bi mu ñëwee ba léegi def na ay jéego yu ama am solo ci ci fànn boobu mm-hmm. et je crois que loolu bu ñëwee dina nekk au grand bénéfice voilà des des, tey ñoo ngi wax exploitation gaz exploitation pétrole et pourtant si débat yu bëri yi ngay dégg da ngay dégg ñu wax ni mës nañ fee exploiter wala sax yàgg nañ fee exploiter li jëm ci gaz ndax li ni mel dëgg la. waaw xam nga loolu euh, loolu quand am na ay incompréhension. Hmm. ndax euh, am na le premier ministre Boun Abdallah à l'époque waxoon na fi ne toq gaz génnul toq pétrole génnul. Hmm. mois je l'ai dit ci benn télévision bëgguma def publicité mhm. j'ai dit que les gens ont mal interprété wala soit le premier ministre a oublié de mettre dans son propos les termes onshore et offshore d'accord euh, te premier ministre loolu mu wax euh, mooy lu am mhm. mais en offshore la maanaam ci waaxi géej gi ci biir géej gi en eau profonde ci biir gi Sénégal bi Sénégal ba léegi exploité pétrole musuñoo exploité gaz. Mhm. par contre li am mooy gazu Gajaga loolu en non sort la ci jéer yi yàgg nañ ko exploité loolu depuis nguuru yàgg na. Mhm. depuis nguuru Abdou Abdou Diouf et cetera yàgg na. Mhm. est-ce que ta avez compris. donc loolu kenn mënu ko mënu ko mënu une une opposition ak société civile profité nañ ci ci lapsus boobu. bëgg a jaboliser Sénégalais naan waaw gis ngeen waxoon nañ leen gaz am na ñu koy exploité kon tàkk na kon gëm ngeen ko fekk euh, voilà loolu kese la par contre je bi aussi ci français bi. Mhm. Euh, gaz yàgg na fi am moo tax bu njëkk ba su Senghor euh, dafa amoon ay indices yoo xamante ni des indices concordants yu wane ne fii war na mën a am gaz. Mhm. cest à ñu am sol boo xamante ni suuf soo xamante ni dafa am li ñuy wax teneur en carbone. mais dafa yàlla dafa doon également moment boobu. Mhm. Sénégal nekkutoon un système pétrolier moo taxoon à l'époque bureau bureau de recherche la ñu amoon. maanaam c'était pas fayda lañ ko Mm-hmm. bi ñu demee ba ci biir nag avec nos nos chefs d'état ci lañ taxawal Petrosen en dix neuf cent quatre vingt un gën a accentuer les recherches. Mm-hmm. te tey yaakaar naa recherche yooyu ñu accentuer moom moo andi wane ne suñu suñu waaxi géej gi dafa riche en pétrole et et et en gaz. Mm-hmm. l'autre élément mooy wax nga ko sànq depuis suñu indépendance ay mille neuf cent yooyu amoon na pétrole ñu gis mais pétrole yooyu dafa fekk ne. Euh, nekkoon pétrole boo xamante ni mun nañ ko génnee ba koy commercialiser. maanaam pétrole pour nga jaay ko mu jëriñ la. dafa fekk dafa am lu muy tëddee. Mm-hmm. su fekkee da koy génnee mu ne pétrole lourd bëri ay jafe-jafe ba pare aussi contexte bi mayu la ko boo ko mm-hmm. génnee aussi dangay ngay ñàkk loolu moo taxoon Sénégal exploité wul pétrole bi et l'autre exemple mooy. Mm-hmm. soo ñëwee ci li nga xamante ni mooy géeju Sénégal ak euh, Guinée-Bissau te ñu bokk si ci frontière maritime foofu. sa am na aussi pétrole bu bëree bëri mais pétrole lourd la parce que pétrole dafa am bu woyof bu baax bi ak bu bu bu bon boo xamante ni baaxul bëriwul njëriñ dafa mel mango rek am na bu gën a neex am na boo xam dafay wex et cetera mhm. donc et je crois que pétrole la boo xamante ni ñu ngi ko gis ci forum ministériel de l'Oligocène pétrole lourd mhm. mais ñaari état yi envisagé wuñ euh, exploité ko moo tax may fàttali euh, bi dose yi nga xamante ni ànd nañ ko ci wàllu vaccin Covid bi. Mhm. Sénégal bi mu jëlee donte motlewul jël ay dose may Guinée Bissau ak Gambie. les gens dañoo ñu naan waaw ñun jommi wuñ yow motlewoo di maye mais comprendre ñu woon ne ko foofu président la République la doon dawal parce que quand même. dafa am loo xamante ni diplomatie la. comme dañoo bokk foofu pétrole donc da nga war a neexoo fexe ba teg les conditions pour neexoo euh, dëkk boobu ba ëllëg su fekkee dañoo taxaw pour exploiter ñu mën a harmoniser très facilement suñu législation yi mën cee dem et je crois que foofu noonu suñu bassin bi wax naa ko c'est bassin inexploité mm. li na ci biir sax xamaguñ ko carrément parce que ba léegi ñu ngi ci di ko di ko di a photographier pour gën xam la ci biir parce que bassin bu am solo bu riche mm-hmm. c'est pourquoi je dis que Sénégal c'est un pays gâté par la nature tey lan Sénégal di xaarandi ci phase exploitation boobule. enjeu yi en fait. enjeu yi enjeu yi dafa énorme hmm. bëri na hmm. d'abord bu ñu waxee enjeu économique bi mooy comme ni ñu ko waxee sànq enjeu bi nga xam ne day andi koppar. Hmm. loolu war nañ ci mën a vraiment nag suñu réew yi jugee ci point A dem ci point B. ba nga xamante ni nit ñi dañ mën a gis seen bopp. ci affaire yi denrées de première nécessité yi pourquoi pas. dans la mesure du possible ñu xool nu ñu ko xoolee courant bi ñëw wàññi affaire yi gaz bi yomb et cetera. Mm-hmm. loolu war na mën a nekk. Mm-hmm. mais au delà de enjeu yooyu dafa am enjeu sécuritaire boo xamante ne man pour man moom mooy xolu exploitation pétrole. Mm-hmm. tey boo demee réew yu bëri loolu moo leen daal parce que la plupart du temps c' est la pratique da gis réew yi nga xamante dañoo am pétrole dafay am ay samba booy ak ay lobby yu fay ñëw pour xam taal bi pour que dëkk bi bu taalee tàkkee ñoom ñu xool. ay nit yoo xamante ni am nañ jox ne xëy na mun nañoo nekk président wala mun nañ téye réew mi ëllëg mhm. financé leen ba nga xamante ni ëllëg ñoom dinañ mën a bénéficier wu ci permis pétrolier ci titre minier de hydrocarbures c'est pourquoi un jour euh, j'ai discuté si ci affaire u flux financier yi mhm. mooy alal gi nga xam ne day dugg Sénégal mhm. dem ak ñëw dem ñëw loolu état war na ko saytu ñu xool ko def ko de manière sereine et lucide de manière euh, clean ñu xool quand naka la ñuy def ba nga xamante ni dañu mën a ñàkk suñu réew mi parce que tey fi toll nii réew yu bët dañ ñoo teg doj mhm. te pétrole fu mu gis nañ kaawu Nigéria gis nañ kaawu Angola gis nañ Tchad récemment Tchad ñi ngi wax président Idriss Déby li ko rey mais euh, nee nañ euh, dafa mag a mag ci biir assassinat bi yàlla moo xam ne nee nañ parce que bi mu ñëwee ñu compagnie yi ba fekkoon daf leen changé jox ko ñeneen donc et cetera et aujourd'hui au-delà de ça euh, du point de vue géostratégique géopolitique Sénégal nous sommes nous sommes entourés par une ceinture de feu mhm. vous avez compris donc loolu au-delà sax du pétrole bi même en dehors du pétrole loolu bu fekkee dafa taxaw nit ñi gis ko Mali mi ngi tàkk mhm. Guinée Bissau narcotrafiquants yi ñu ko bëgg a yàq ñu mhm. euh, tudd sax Guinée Conakry la même chose mm -hmm. et cetera Burkina la même chose moo tax tey pétrole bi nag bu ñëwee nekk meññeef boo xam meññeef bo am solo la donc dañuy gën a jël suñu matuwaay. moo tax il y a quelque temps il y a quelques mois. Mhm. bi ma déggee ne njiitu réewu Sénégal dafa contribuer ci turu Sénégal à hauteur de un milliard ci G5 Sahel man dama ne j'ai applaudi mhm. dama kontaan ma ne voilà les vrais enjeux. am na ñu naan waaw kii moom tamit waanewul wala nga baal ma ci terme kii moom lu muy def nii yow mat la woo di jël xaalis un milliard di ci ay G5 c'est parce que les gens n'ont pas compris les enjeux G5 Sahel bu bu daanoo ñun dañuy daanu réew yu fa nekk ay Mali ay Mauritanie vous avez compris ak Niger yooyu bu ñu daanoo ñun dañuy daanu mm-hmm. donc président bu jëlee un milliard def ko foofu dafay prévenir dafay anticiper ci li nga xamante mën na aar suñu réew mm-hmm. te je crois que loolu la ma ko ci félicité voilà ndax mën nañoo jël suñu yaakaar yëpp wékku ko ci pétrole ak gaz waaw xam nga erreur bi nga xamante ni waruñu ko def mm. moo ñu jël suñu gaz yi am na pétrole am na ñu jël lépp yëpp si gaz la plupart du temps réew yu ko def euh, dañoo mere seen bopp vous avez compris mm. gis nañu kaaw Hollande gis nañu réew yu bari yoo xamante ni loolu moo leen dal maintenant ce qu'il faut faire wax naa ko sànq ci français bi mooy bu ñu génnee alal gi nga xamante ni mooy génn ci pétrole bi ak gaz bi mm-hmm. ñu jël koom-koom boobu xool pàcc yi nga xamante ni mën nañ ko euh, financé ci économie bi mm-hmm. euh, pour aussi également dérouler les politiques publiques mais également jël alal goo xamante ni dinañ mën a def lu ñuy wax pétrochimie maanaam changer au-delà du pétrole xool yan produit lañ mën a am ci pétrole parce que tey boo xoolee téléphone yi ñuy waxee euh, tey boo xoolee am na ay médicaments am na yeneen ak yeneen am na ay lunettes am na carte gab ça produit bëri na néew na tey si si dans la vie courante nga gis produit boo xamante ni jugewul ci pétrole mm-hmm. est-ce que vous avez compris donc c'est pourquoi enjeu yooyu am na solo bu ñu ko jëlee koom-koom bi bu ko jël rek mu nekk euh, xaalisu pétrole ñu ñëw ne dañuy yokk ay salaire wala def lii mais dañ ko war a ñëw réinvestir ko dans d' autres secteurs mm. porteurs de croissance loolu lu lu lu am am am am solo la su ko defee bu ñu ko bu ñu ko defee rek dinañ ci mën a dinañ ci mën a bu baax beneen élément bi également mooy bu ñu fàtte suñu génération yi ñëw mm-hmm. c' est pourquoi l' état du Sénégal quand même taxawaloon na benn fonds fonds souverain comme fonds qatari beeg fonds norvège bi comme ça dina mën a tax fond boobu di liggéey xalaataale aussi génération bi ñëw parce que ñoom itam euh, ci lañ ci lañ bokk. ci lañ bokk monsieur Abdou Latif Kane ñu lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi leen di gërëm di leen di leen sant.